xam na defeere nañ leen police leen defeere yéen kaay gi nee na opération yi nga xam ne police yi mi daanuñu koy defa ci frontières yi ak lu jëm ci waaxu Sénégal yi ci ñi nga xam ne ñooy tukki ci anam bu jaarul yoon loole tamit nemmeeku nañ ne bëri na ci réew mi yéen kaay gi du l'observateur bu dee nag lu jëm ci wàllum drogue bi ak wàllum yamba bi ñi nga xam na ñoo koy trafiqué ak ñi koy jëfandikoo ci Sénégal daanay takku lala région bu Thiès Kolda Dakar Sédhiou Diourbel région yi ñoo jël raw gàddu gi waaye nag journal bi di réew mi quotidien nee na kenn du waa Thiès Thiès moom ñoo jël congolonko gi ndax nag bu dee lu jëm ci wàllum trafic yamba maanaam Cees la wulee ñaay ñi nga xam ne tamit ñooy jëfandikoo yamba maanaam Cees la wulee ñaay li nga xam ne moom la ci police teg loxo journal bi nee na takku na loola ci lu jëm ci wàllum ñi nga xam ne ñooy tukki ci anam bu jaarul yoon réew mi quotidien nee na ci waaxi Ndakaaru ak Rufisque ak Yaraax mbaaw ba ci Géejawaay ak Mbuur foofee tamit bëri na ñoo xam ne bëggoon nañoo tukki police su Sénégal koy gàntal loolee feeñ na ci rapport nay yokk daan nay yokk ñi nga xam ne ñooy dee ci tëli bi yokk na loola waaye nag ñi nga xam ne ñooy sàmba boye lu jëm ci wàllum délinquance loolee gis nañu ne maanaam wàññeeku na escroquerie maanaam dëbbali njaani nax ko loolee tamit gis nañ dafa yokk ci réewum Sénégal rapport bee ko wane bu dee nag ñi nga xam ne ñooy def ay ñëwteef ak i giraawal ci lu jëm ci internet bi loolee bi ñu ko xayma ci rapport bi toll na si junne juróomi téeméer ak fukk ci mën na ñoo wax ne ci biir bennoo féppay boy féppay boye ndax ñi nga xam ne ñoo dëkk Pikine Ouest ñoom nag dañoo lànk kandaare contestant investiture yi nga xam ne Benno Bokk Yaakaar def na ko yéen kaay gi di Vox Populi ak 24 heures nee na njiitu mi di président Macky Sall bu gagné élection député yi nga xam ne moom la ñu dëgmal dinañu jaaxal ndax nag ci biir APR ci biir Benno Bokk Yaakaar ñi nga xam ne ba dara du dara ñoo àndoon ak Macky Sall jamono ji dañoo mer ba maara day taale daan nañuy taxawal ab plateforme ñoo ko foloon ñoo koy foolee Fallou Ndiaye mi nga xam ne conseil départemental bu Mbacké bokk ci ci ñi sos APR ak ñi nga xam ne ay alliés lañ ci biir Benno Bokk Yaakaar ñoom nag nee nañu ñoo faloon Macky Sall ñoo koy folli li nga xam ne moo leen méttee nee nañu nag Macky Sall ak ñi mu àndala amuñu benn considération si ñooma moo tax ñoom nee nañu nag Sénégal gi yëpp yëpp yëpp dinañu ko wër maanaam daal di campagne ngir nag contre liste Benno Bokk Yaakaar bi ngir nag Benno Bokk Yaakaar mën a ñàkk ci élection yi yéen kaay gi di Walf Fadjri nee na nag Macky li nga xam ne moo koy daaneel mooy dund bu seer bi dund bu seer bi maanaam dund gi jamono ji jafe na lool lool lool askan wi maanaam njëg yi nga xam ne moo yokk ci réew mi njëg yee bëri njëg yi yokk moo bëri ci réew mi waaye tamit ñàkku kaaraange gi nga xam ne moo am ci réewum Sénégal loolee rek mën naa daaneel Macky Sall boo ci yokkee nag tension économique bi maanaam sunu koomu réew mi nga xam ne demul ci nga dikkul mbay laar ñëpp xam ne dafa nërmeeloo ak tension politique bii nga xam ne moo am lii lépp nag journal bi di wal fa jëree nee na giraawaali la ak njombe goo xam ne bu explosé du baax ci benn bokk yaakaar yéen kaay gi di enquête nee na jamono ji république bi dañu ko téye otage ñi nga xam ne ñooy waa coalition Yewwi Askan Wi ak coalition Benno Bokk Yaakaar tension bi nga xam ne moo am ci diggante ñaari coalition yii tension bi rëy na ndax ñi nga xam ne ñooy waa coalition Yewwi Askan Wi nee na ñoom Déthié Fall nee na ñu nag dinañoo amal mobilisation juróom-ñetti fan ci weeru juin ñi nga xam ne nag ñoo bokk tamit ci Benno Bokk Yaakaar nee ma ñoom Bamba Fall ak ñoom Farba Ngom ñoom tim nee na ñu àllarba juróom-ñetti fan ci weeru juin ñoom tim danañu wàcc ci mbeddi Ndakaaru yi Bamba Fall nee na xale yi Ndakaar yi booy Ndakaar yi ñëpp dina leen wax ñu génn juróom-ñetti fan ci weeru juin ñoom Déthié Fall nee na en tout cas tension bi jamono ji yéeg na loola moo tax ñi nga xam ne nag ñooy société civile bi ñoom nag ñoo ngi sàkko ci waa conseil constitutionnel ngir nag ñu jël ay dogal yoo xam ne dinañu mën a organiser élection yi jaar yoon ci réewum Sénégal ndax nag réew mi fi ñu toll nii suñu moytuwulee lay ram sañak ba la jëm te bu fa amee kër du baax Sénégal mën naa dugg ci musiba ma ba kumba yéene kaay gi di Sud Quotidien nee na la société civile calme le jeu yéene kaay gi fi nekkoon ministre bi ñu dénk wàllu wér gi yaram gi démb bu def na passation de service ak mari Khemesse ngoom Ndiaye maanaam jokkalante nañ leen yee moom Marie Khemesse Ngom Ndiaye ni ki démb nag yëkkati na ay kàddu yu tey war a nee na Abdoulaye Diouf Sarr lépp lépp lu mu def ci lu baax man Marie Khemesse Ngom Ndiaye maa ngi ci biira waaye tamit Abdoulaye Diouf Sarr lépp loo xam ne def na ko ni ay giraawaale man Marie Khemesse ngoom Ndiaye maa ngi ci biira yéene kaay gi di Libération xëy duñu xibaar naan ñu lu ko giraawaale ga nga xam ne moo fa amoon ba benn soxna bu tudd asu soxna ñàkk ba bakkanama waaye nag ñi nga xam ne ñoom la ñu joxar bi woon baaraamu tuuma dañu leen a mujjee ak bàyyi sursi daal lañ leen tëjoona waaye nag asu soxna ma ñàkk ba kanam borom këram ba léegi ma ngi mer ba maara day taale daal nay porte plainte nag joxar bi ki nga xam ne mooy gynécologue ba ak direction hôpital ba yéene kaay gii la sa nee na njombe gi nga xam ne fan yi ñu génn moo amoon ca diwaanu Tivaouane nee ma ca hôpital Mame Abdou am na nag ñetteelu retour de parquet ci ñi nga xam ne ñoom la ñu jàpp ne seen loxo laali na ca biira yéene kaay gi di Sud Quotidien lu jëm ci wàllu wér gi yaram gi ci Sénégal demul cee nga dikkul ngi mel ni tulleeg màlle scandale yaa ngi mel ni tulleeg màlle fédération des syndicats de la santé ñoom nag nee nañu dinañu amal ñetti fan yi grève juróom-ñetti fan ci weeru juin lañ koy commencé ndax nag ñoom fédération des syndicats de la santé nee nañu ñoom jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy dund ak état bi nga xam ne dafay wax ay wax yoo xam ne du ko jëfee ñoom coono bi nga xam ne na ñu ko nee nañu tàyyi nañ damm nañ dee nañ am na loo xam ne ñoom mënuñu koo woy ñoom ñooy wax ma ngi ci journal bi di Sud Quotidien yéen kaay nga xam ne moom la bëggoon a amal ci diwaanu Thiès préfet daf koo tere li tax nag préfet tere ko mooy daayira murit yi nga xam ne ñoo nekk Thiès ñoom ñoo jóg woote ab appel nee nag ki nga xam ne mooy Aïda Diallo duñu ko bàyyi muy defuk cant loole moo tax préfet daal di koy tere yéen kaay gi dee sat xëy duñu xibaar nan ñu mercato bi njënd mi ak njaayum joueur ca bitim réew jamono ji saajo maane ñëpp ko bëgg club yu mag yëpp ñoo ngi xëcco Sadio Mané waaye nag journal bi dee sat waaye nee na moom Sadio Mané moom ci ban club lay dem loolee nag ab laaj la journal bi nee na Bayern soxla nañ Sadio Mané loola